waaw li ñu ci mën a jàpp mooy euh, comme naka jekk président assemblée nationale bi tàmbale na ak retard bu jéggi dayoo. loolu jaaduwut bu ñu bëggee dem ci kanam dañu war a di tàmbale ci waxtu comme ñépp bu ci des mooy li texte yi ñu fi indi am na ci boo xam ne indi na coow lu bari ba ci. biiru njabootu président la république mooy groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar am na ñu bëri d'accord ci parce que texte bi dañu ni dañu jox président la république saa yu ko neexee ci coobareem te amul benn sabab boo xam ne lu ñu mën a comprendre bu ko neexee mu euh, mu tas assemblée nationale bi tasu assemblée nationale nag boo xam ne askan wi moo ko fal fañ ko may chef de l'exécutif bi chef de l'exécutif bi dafa fekk ni assemblée nationale am sañ-sañ moom it folli chef de exécutif boobu fi chef de l' exécutif c' est le président de la république mais assemblée nationale mënul ci moom dara bu ngeen seetloo France bu ñu gën a euh, euh, jege ay constitution celui qui dirige et définit la politique de la nation qui définit politique nation bi premier ministre bi la moo tax bu amee cohabitation premier ministre mooy nommé ambassadeurs yi di nommé emploi civil militaire yi di définir politique de la nation boobaa président de la république day toog rek moom défense ak politique étrangère la yor waaye fii premier ministre moom yóbbante dañ koy yónni rek vague maître la ba pare président bi nga xam ne mooy décider politique mooy définir politique de la nation assemblée nationale mënul ci moom dara te moom mu mun am sañ-sañu tas assemblée donc équilibre des pouvoirs bu ñuy wër nga xam ne assamble war na mën a càmbar président de la république ak gouvernement dañ ko rocc ci assemblée. parce que boo ragalee président de la république dissoudre la doo dem di càmbar nu mu yoree force Covid yi pourquoi euh, fonds Covid bi demeewul noonu pourquoi moom et extra et cetera suñu digganteeg yenn réew yi naka la fa doxalee walla et cetera munoo ko càmbar. donc lii dafa ja dëppoo ak yoon bi ci des mooy dañu lay bi ñu lay mooy nii. lu tax ñu war a mën a dissoudre mooy pour yaxanal alalu réew mi fexe ba nga xam ne ñaari élection yi dañuy méngoo waaye loolu jëf ji ci boppam daf ko weddi parce que bu président mënee dissoudre saa yu dissoudre rek assemblée élection présidentielle mandat wu député bi ak mandat wu président dootul ànd parce que bu boobaa dañuy reprendre élection législative donc bu fekkee ni dëgg la ci moom dañu wér ci moom ne dañu bëgg a yaxanal alalu réew mi lan la ñu war a def dañu war a rocci président de la république possibilité mu dissoudre assemblée nationale bu boobaa bu ñu xasee ñaari bu ñu xasee ànd dootuñu tàqali ko loolu mooy réalité nañu bàyyi nax yi ak caaxaan yi